jàpp na ci mondial gi de <laughs> c' est un DG c' wax naa moom PDG éternel. <laughs> ay jàmm jàmm rek. yow wuute nga mais mais moom yow mel ak yow ni nga mel c' différent ah jox ma ngay génn pièce di mais pièce nga sax fi yow mën naa comprendre wala. <coughs> ok man xam naa ne laay def. te yow bu ma defee li may def yow boo ko yëgee di nga am lu métti xam naa laa def. beneen takk man seer ak màggal beneen takk bi dañuy joxe waaj màggal Touba lépp rek liggéey Serigne Touba yéen ñi ñëwagul ñëw leen destination 2 millions aji na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw ma ne ko dëgg dëgg taalibe Serigne Bamba ak a bëgg Serigne Touba <laughs> loo ci def loo ci def doo ko. safar symphonie. <laughs> dafa bëgg sëñ Tuubaa moom. moom. àdduna seere ni Aziza dafa bëgg sëñ nga def sa maanaam li nga xam ni mooy sa safaar. dimbali jaam ñi togg nga na sa jàmm yaa sëñ Tuubaa xam ni moo dàq fay ñëpp la sëñ Tuubaa nga xam ni lépp dëgg la sëñ Tuubaa ci xol rek daa doy waaye di ko wane fu ci àdduna ñëpp di ko gis sëñ Tuubaa dafa soxla ay communicateur la mu def ci lu baax ñu ko koy waxal di ko ko waneel li dafa am solo yal sa jàmm yàgg jàpp na ci mondial gi de <laughs> c' est un DG c' wax naa moom PDG éternel. <laughs> ay jàmm jàmm rek. yow yow mais ni Bougane mel ak yow ni nga mel c' est différent ah jox ma ngay génn pièce di mais pièce nga sànni fi yow mën naa comprendre wala. <coughs> ok man xam naa ne laay def. te yow bu ma defee li may def yow boo ko yëgee di nga am lu métti xam naa laa def. ren takk maam seer ak màggal ren takk waaj màggal Touba lépp rek liggéey Serigne Touba yéen ñi ñëwagul ñëw leen destination 2 millions aji na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw ma ne ko dëgg dëgg taalibe Serigne Bamba ak a bëgg Serigne Touba <laughs> loo ci def loo ci def doo ko. safar symphonie. <laughs> dafa bëgg sëñ Tuubaa moom. Aziza moom. àdduna seere ni Aziza dafa bëgg sëñ def sa maanaam li nga xam ni mooy sa safaar. dimbali jaam ñi togg jox jaam ñëpp di lekk te ñëpp xam ci li nga yëngu Aziza yaa nga xam ni moo dàq fay ñëpp nag bu la sëñ Tuubaa fay la sëñ Tuubaa ci xol soxla ay communicateur la mu def ci lu baax ñu ko koy waxal di ko ko waneel li dafa am solo yal na sa jàmm yàgg